da ngeen jëf ami téléspectateur u ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax a baax di leen ñaanal jàmm ju bari te di ko sàkku ci yéen di ñaanal sunu kilifa diine ak sunu kilifa aada yi di ñaan ñi nga xamante ni caabi da leen féete ginnaaw yàlla sunu borom may leen liberté ak indépendance ba ñu delluwaat ci seen famille ñaanal ñi nga xamante ni yàlla da a jël ci coobareem yàlla may leen jàmm ak salaam euh, tey nag ñu am mbégte ci dalal koo xam ni day kenn ci réew mi fan yi nag ku ne gis na depuis trois jours yi li am ci réseaux sociaux yi am imaam indi imaam am am lii indi lee ah li may wax nag people 221 moom du jëlee ci ay dégg naa foog naa day dox ay tànkam ñëw seet si ki nga xamante ni mooy Ndeye Mbili ji mu di imaam ah tey moom lañ fas yéene seet si waxtaan ak yow imaam dañ lay bàyyi nga nuyu ñu lay siiwal fii ci people 221. waaw waa people 221 ñu ngi leen di nuyu. Mm-hmm. à travers réseaux sociaux yi ak à travers euh, diaspora beeg. Mm-hmm. ñi nga xamante ni ñëpp ñooy seetaan. Mm-hmm. xew-xew yi xew. moo xam diine la moo xam culture la moo xam lu mu mënti doon mm-hmm. aada ak yëpp mm-hmm. ñu ngi leen di nuyu di leen dalal yéen ñi nga xamante ni yenn déplacé wu ñëw seet si ñu sàkku ci ñun ñu am kàddu yu ñu weccante mm-hmm. imaam fi may njëkkee bo bëriwul lu ñuy gis imaam di dugg ci li nga xamante ni moo di affaire politique te politique ci cadre diine am na ñu ni sax dafa bokk ci lislaam parce que am na ñu naan xubbul watani minal imaan mm. tey ñu gis imaam gën a fës ci politique ba que diine ji mën nañu mën nga ñu indi loolu ay leeral. déet man gënuma fees ci politique que diine parce que man diine rek laay dund. Mhm. politique nag mën naa ci ndékki. Mhm. ñàkk cee añ. Mhm. wala ma reer ci ñàkk cee ndékki. tekkiwul ne li nga wax ne nga gën a fees ci politique déedéet fees naa ci diine. te beneen bi ci des diine politique recto verso la. Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dafa politiser diine l'islam dafa am bu xel ak conscience di nangu ak boo xamante ne xel nanguwu ko dafa am loo xamante ni ngor dana ko nangu ak lu ngor nanguwul loolu nag nit ki la waaye jëfi politique ñëpp képp ko mënti gis am na sañ-sañu taxaw wax li xew ci réew mi est-ce que yëg nga ni góor gi ajjuma bu jot ajjuma bu jot nii ñuy defee ci jumaa yi nii. Mhm. ay jumaa yee ngi ci yeewu. Mhm. mais àjjuma bu jot dañu war a wax li xew ci semaine bi. d'accord li xew ci semaine bi lan la ci point mooy point l'islam mhm. ak lan la ci fii ci lislaam yem ak ndax maandu na ca wala maanduwuñu ci. nga wax ci société bi li fi xew. loolu mooy li ñuy indi xutba àjjuma loolu lay tekki. donc kon li xew ci euh, nuñ koy tuddee ti euh, koñ bi wala ci gox bi. mais mënoo cee génne doxalinu gox bi. Mhm. ku wax goxalin doxalinu gox bi wax doxalinu réew mi. Mhm. yooyu yëpp mënoo ko ci génn ndax léeg-léeg àjjuma mën nga génn gox bi dugg ci réew mi. Mhm. wax li xew. lan moo ciy point diine. lan moo ciy taxawaayu diine. nga def ko nag ci sagesse. udon ila sabili rabbika bil xikmati. wal mawidati l xasana wa jaadilhum billati hiya ahsan. et eh, ñun loolu moo ñu sóob te beneen bi ci des nag maa ngi dégg naa xubbul watan mi dafa am loo xamante ni gis nga. guy gi. dama la ci yee gis nga àdduna. dafa ubbeeku te yaatu. nekkatul ci toog ci sajaada yore sa kurus. yorul dépense. toog ci sajaada yore sa kurus yorul dépense. waxuñu nag nag da ngay pour dépense. waaye boo politiquee ba dépense dab la ca nga sañ ko jël sàqami ko. waaye li ma la bëgg xamal. l'islam ak politique ñoo ànd. bëri na ñu fi jaar. Mhm. ana baayu euh, Cheikh Bamba Dieye. Mhm. imaam la woon oustaz la mhm. woon. ana baayu Mame Mbaye Niang. ay eh, mën naa koo topp di dem ana Lamine Gueye. Lamine Gueye alim la woon borom xam-xam la woon. mën naa tudd ñeneen ak ñeneen. et bu ñu bëggee jël nag politique ne. yow imaam nga waruloo politique. déet loolu. imaam dafa war a politique parce moo xam. ruq bii ñu nekk. Mhm. délégué ak imam la plupart ñoo fi gën a xam jàmbatu askan wi. Mhm. Mhm. ñoo koy faj. ñoo ciy taxaw. ñooy jullee néew yi. ñooy xam ña néew doole. ñooy tudd doom yi. ñooy takk sëy yi. mais kooku boo ko génnee ci politique. lu fay des. dara kon imam dafay politique. waaye bu wuuteeg nag politique gu fen ak sos. bu ca yooyu duggee rek. bu retiré wu de. Mhm. fexeel ba xeex loolu génn fa. Mhm. Mhm. bu fen bokkee bokkatuma. fexeel ba xeex fen ya ba dootu fa am. foofu nga duggee. mooy xamal ni maanaam day politique. d' accord fi may d' accord fi may ñëw fi may ñëw barki démb ak démb ñu gis ci réseaux sociaux yi. ay vidéo yoo xamante ni daanaka mën naa ko tuddee coow wala histoire. ñu gis ci vidéo yi xeex ay 16. du jug euh, mën nañu mën nga ñu expliquer c' est problème. waaw problème bi lu gàtt la euh, xaj na da ngaa wax lu rafet rek bàyyi li ci des waxuloo lin naa si xusnan mhm. waaye dañ ma agressé dañ ma jàmm parce que dañu génne vidéo li tax nga daw ñëw fi mooy mhm. dañoo génne vidéo mhm. ba pare tudd ca sama tur sa tur maa ñëw ci yooyu wëlbatiku accusé ma lan moo waral vidéo bi lan moo waral vidéo bi tey mu egsi ba loolu am guy gi dinaa la waxal ne dafa am lu ñuy tuddee comité de gestion mooy comité boo xamante ni. Mhm. assemblée moo ko fal. Mhm. ca avant Covid ba. Mhm. diggante bi Covid bi daw fi. diggante bi Covid bi di daw ñaari at ñett dañu arrêté woon lépp. dematuñ duggatuñ jàkka defatuñ dara. kon réunion tuñ. comité bi day arrêté. bi ñu demee ba état nañu reprendre. comité bi reprendre. léegi nag coow li commencé ñu ne ñu ñëw nag. ndeke am na ñeneen ci suuf ñoo xamante ni. am na ñeneen ci suuf ñoo xamante ni. jóg nañ ci jamonoy Covid bi. ñuy dem di def ñoo parallèle maanaam créer beneen comité boo xamante ni. yëgoo wuñ ci comité bi fi nekk te defuñu assemblée ba ñu folli leen. defewuñ ko ci jumaa ji nu koy defee ci yeneen kër. bi ñu nee ay ca. jumaa yi ubbi na. le premier vendredi ñu ñëw ne xës ci kanamu nit ñi ne. Mm-hmm. imam bi jël na décret bi. Mm-hmm. nee na lii ak lii la ci loo xamante ni tey moom waru ko woon jël wala bu koy jël sax au moins war na woo comité bi ne leen man en tant que imam jël naa décision bi. Mm-hmm. décision ba la ca lalu yëpp liñ bind ca fooy ba mooy ne dañuy écarter Khalifa Ndiaye. ci bi ñuy soog a reprendre ca Covid ba ñaata at ak léegi. booba mm-hmm. est-ce que defu ñaari at wala mu jege ko. Mm-hmm. Mm-hmm. ñu lañ ca bind. mooy écarté nañ Khalifa Ndiaye bu mu laalati micro bu mu jegeeti micro. te Khalifa xamul lu mu def. te Khalifa imaam woowu ko ne ko lii la def. doomi imaam moo dirigé loolu. li ko ko yit li ko ko tax a def nag. yenn raison la rek. mooy ni dem na ba ni man am na ñoo xamante ni dem nañ ci sama papa ne ko naa ko wuutu fii ci jumaa ji. ma ko jumaa ji nag santul Diop. du jumaay ndono coow li dekki d'accord naa Seydil Hadj Malick jumaa jële ci biir Dakar Tiwaawan a koy gérer ñooy wax la fay dox ñooy saña tànn ne kii fay jiite kii fay topp boo fa nekkee naayib yal na la jig mais fii teg ko ci yoon ah am naa ci droit wala ma ci droit parce que depuis mille 2010 maa ngi fay jiite ba ko waxee ba léegi nag coow li commencé xeex yi commencé. Mhm. sos wu ne ñu génne ko teg. Mhm. ba li egg si nii tey egg si. d'accord assemblée bi ñu jàpp ko. Mhm. ci ci balaa ñu koy jàpp nag. bi cool yi di dem di dem di dem di dem saisir nañ préfet ay yoon. préfet des Almadies. sous préfet des Almadies. saisir nañ ko ay yoon. ah moom tamit xaj na ñoom ñoo xam nañuy doxale ci bu ñu leen indee exposé leen benn problème xaw ma nu ñu ci doxalee. waaye yëg naa ni convoqué nañ ñu ñaari yoon. wax li ñu war a def. ñu ñaanalante baalonte àq. ñun comité de gestion bi. ba ñu génnee la ñu wax respecté nañ ko à la lettre. waaye beneen côté bi. faale wuñ luy préfet sax. ñuy doxale noonu doxale noonu ba lii xew. te lii nag li ko xewal suñ demee ba ci biir. soo ko laajee dinaa la ko. dinaa ci ñëw mu mel ni affaire bi. Euh, dañu gis ci vidéo yi ñu dégg ñii naan euh, nu ma la ko mën a expliquer rus war nga ñëw rus a jëlee ay njaganjaay ñëw fii di fi indi ay coow ay jigéen taxaw ni leen doo leen dugg ci jumaa ji. waaw njaganjaay yi imaam bi confirmé na ko. Mhm. imaam bi mag bu mag bi. Mhm. Mhm. confirmé na ni. moom moo dem jëli njaganjaay Pikine. pour ñu ñëw xeexal ko ci jumaa ji. du voté de. du voté de. Mm-hmm. pour ñu ñëw xeexal ko ci jumaa ji parce que amuñu sañ-sañu voté fii. Mm-hmm. moom nangu na ko. Mm-hmm. nee na fi mu ko teg mooy man damaa def benn audio di woo sama waa daayira. mais guy gi sama waa daayira dinaa la jox audio bi dama ne leen bu ngeen di ñëw na ngeen ànd ak yar ak teggin. bu leen fa xuloo. bu leen fa saaga. bu ma fa dégg lenn di jóg ñëw leen ñu voté ku yàlla jox ndam ñu ànd ak yow liggéeyal yàlla. bu ma yàlla joxee ndam ma ànd man sama groupe liggéey ak yàlla. Mm-hmm. donte groupe yooyu sax warul am ci biir jàkk mais am na ba pare parce que comité de gestion la. Mm-hmm. bi loolu amee moom wax na loolu. Mm-hmm. kon jigéen ñi am nañ sañ-sañu taxaw. ne mobilisation Ndiaga Ndiaye politique ñu. du fi am. du fi am dana fi am du fi am dana fi am. ba coow am fa dóorante sees ñu dóor sama doom ay xale yu ñu jàpp leen leen dóor waaw sama doom ñu dóor ko sees ci digg gannaaw mu ngi fii xale bu jigéen la mm-hmm. et alors yooyu yëpp xew fa mm-hmm. ci laa ci lañ ma wax ne ma préfet nee na nañu arrêté assemblée générale mm-hmm. moom dana jël benn désision bu muy wax ni mooy jàpp dat bi muy defee assemblée jour tel ah alhamdulilah bi ñu ko waxee ci rajo bi affaire ba tas ñu daal di tasaaroo ñun ñu dem. Mhm. ñoom nag ñu des. Mhm. di wut lu ñuy lijjanti. Mhm. après ci gannaaw gi lañ ma bi ma ñibbisee bi affaire bi commencé dégénérer ci lañ ma woo ma imam samay garde corps. parce que yow xam nga na mu demee man maire la dama am droit pour wut garde rapproché. parce que dëkk bi ni mu tëddee léegi dafa métti. bu rawatina nag boo nekkee opposant yàlla boo nekk opposant boo xamante ne nag <laughs> da ngay da ngay tudd turu musiba daal am. nii la mbir mi demee. Mhm. coow yu juddu saisi yi daarante fukki saisi ak ñaar damm nañ ko ci. ci coow li mais ñun ñoo luyee saisi xanaa loolu dana la jox xel ni naka lañuy ñuy luyee saisi ñun. ba pare di ko damm. c'est pas te dañ koy fay saisi bu nekk 3000 francs mhm. Mhm. léegi boo booy mobilisation ñaari njaga njaay yi jóge woon Pikine nañu posé question ban droit la am pour mobiliser loolu ak ñooñu ban sañ-sañ la am pour ñëw foofu. te dëkkuñu fi war fee voté te fi. Mhm. ñu war fee taxaw ne dañuy voté. Mhm. wala dañuy ñëw empêcher nit ñi pour ñu doxal. Mhm. parce que bu ñu ñëwoon sax toog ca gannaaw ak yooyu cool yi dana bëri bëree bëree bëree bëri waaye tôt ou tard danañ mujj ne léegi nañu waxtaan. yéen ñi dëkk Pikine da ngeen a ñëw sécuriser seen maam wala seen papa. am ngeen ci sañ-sañ. mais fii amul loraange. ñu bàyyi la ñu toog mais du ñu voté. mais dañu ñëw envoyer table bi. coow yi commencé. c'est naaw am na ci ko ñoo xamante ni kurus lañ doon dóor ak yu kenn xamul. mais mm-hmm. yooyu yëpp. Mm-hmm. dafa nekkul loo xamante ni day defar. Mm-hmm. parce que gis nga. te ñoo fay ay. moo gën dëgg la. ñu ko fay dëgg la mu mel ni ci coow loolu dañ cee dégg baatu juróomi million ñi naan imam xalifa moo ko jël. di la ci accuser je ne pas est que mën nga nuñ ci loolu. waaw xam nga euh, moom gis nga Sénégal. ñaar lañ gën a bañ. ab jànq ak ku wéradi. bu dee ku wéradi mhm. danañ ko ràngati mhm. bu dee jànq danañ fexe ba xaaw yi suturaam mhm. léegi nag boo demee ba xaw a jëm mag yooyu ñu lay wut ci côté bu nekk ñaar rek lañ la mën a tuumaal jigéen ak xaalis tuumaal laa wax tuuma nag alalu gor la waaye nag sama sëñ daan na ma wax ne bu ñu la tuumaalee na nga teggi tuuma la isaalatu toomate alal xorri waajibun cinq million yooyu ñuy wax ci covid bi la woon man maa wuti cinq million yooyu ñoom seen yoon nekku ci. Mhm. ku ci wax naa fekk nga. Mhm. man nguy gi xalifa Babacar Ndiaye moo dem génn jumaa ji dem wuti cinq million yi. Mhm. balaa may egsi ci cinq millions yi. jumaa jooja nga dem ca kaw ba ci suuf lu dul tabax bi maa ko fa def. jumaa ji waaw maa fa def moquette. ma koy wax ngeen dégg. maa loo fa gis maa fa def sonorisation. maa fa def kilim euh, ya fay am. maa fa def mbaar ba ci bunt ba. loo fa gis lu fay taxaw man maa ko fa def. maay ñëw gis guy gi guy gi yàlla teral ko. ma ne ko dama bëgg nga moketeel ma jumaa ji. ma ñëw gis guy gi guy gi yàlla teral ko ma ne ko dama bëgg nga defaral ma sonorisation. noonu laa ko toppi di ko toppi di ko toppi ba ci pavage yi. bi Covid bi di dem bay waaj a jeex ma gisee maire bi ñuy tuddee Soham Wardini mais Soham mu ngi fii Karak. du ma bàyyi ma fenn. guy gi xaalis balaa ñu la koy jiiñ ne yaa ko jël. ñoom kenn du jàkkaarloog man wax ma ko. Mm-hmm. dañuy gis ñu yëkkati xaalis teg sa loxo. Mm-hmm. ku ko jàkkaarloog man ma yóbbal ma yónnee la sommation. Mm-hmm. te da ngay tëddi kaso. lan moo xew ñëw nañ taxaw nañ Covid bi ñëw na. ñuy pompe jàkk yi ñu dem jàkk bi ci biir Karak. ma fekk fa maire. su am wàddin xool jàkk ji ñu karole ko ma ne ko dégg naa ne yaa karole jàkk ji. mu ne ma waaw. ma ne ko dama bëgg nga pavel ma jumaa ji. moo tax ma ne la ma wuti cinq millions yooyu. Mhm. soo am ne ma est-ce que doo bàyyi ba ñu jënd usine bi ñu ngi ci procédure yi. Mhm. ñu mën a ñëw paver la pavage yu dëgër. Mhm. wala ñu jox la cinq millions yi. ñu jox leen sax cinq millions yi. ma ne ko comme que Covid baa ngi jeex. jox leen ñu cinq millions yi. ñu liggéey ci bu ngeen demee ba usine bi kii. ngeen ngeen ngeen ngeen continuer seen seen pavage. Mhm. mu ne ma waaw da da ngay ànd ak waa jàkka ji maanaam suñu ne waa jàkkati waa waa comité de gestion bi ngeen fekk ma building. Mhm. communal. bi mhm. nekk wetu RTS. ma woo président. woo trésorier. woo secrétaire. woo président organisation. ak seen seen yenn adjoint. ñu jubali ci bureau ba gannaaw ba ma tàggoo imam bi. doomam di ma xeex tey. ñu dem bi ñu demee fekk fa su am mu recevoir ñu yëkkati laaj ñu papier yi boobu sax indiwuñ papier ay la yéen dañu ñëw wax ko ko mën ne ñu léegi da ngeen di dem ngeen indi papier jàkka ji. Mm-hmm. mooy këyit bi wane ni état moo leen autorisé woon ngeen def jàkka ji. Mm-hmm. ak kayit bi nga xamante ni mooy seen dernière assemblée générale. Mm-hmm. ak kayit bi nga xamante ni mooy wane ni compte bancaire bi ngeen amee guy gi. Mm-hmm. man Khalifa Babacar Ndiaye billaahi laa lay giñal. Mm-hmm. xaw ma fu jumaa ji ubbi compte xaw ma ban banque la. jumaa ji jumaa ji tey xaw ma ban banque la ubbi compte mënuma la ko wax xaw ma crédit mutuel xaw ma bisik xaw ma bisis xaw ma fan la ubbi xaw ma ko. xanaa banque sa baram mhm. benn bi ci des. Mhm. numéro compte bi ñuy weer sa xaalis xaw ma ko. la xaw ma ko mu guy gi. parce que man imam laa du ma trésorier. Mhm. du ma commissaire au compte du ma président. dégg naa kat ñu ne banque ba ñaari signature fa dem. signature président ak signature trésorier. trésorier bu ñu ko joxee xaalis. Mhm. bu koy dugali ca banque ba. Mhm. day wax président ñu ànd dem mu signé mu signé buy génne tamit noonu. Mhm. soo am na leen indi leen ma papier yi ba ñuy yóbbu pa keroog ba ma plaidé ba ñu laaj leen papier yi. booba laa gëj a xam nu mu demee. ñu trahir la. non waxuma trahir teggo fi may waxa de papier yi ba ñu ko soo am laajee. ba ñu dajale ko ba mat ni ba ñu koy yóbbu man ànduma ca ñu koy yóbbu laa la bëgg a wax. parce que man facilitateur laa woon diggante ñoom ak Soham Wardini mhm, mhm. parce que Soham ñun ñoo ko fa teg mhm, bi ñu demee ñoom ñu yóbbul ko papier yi ñu toog un mois suma juumul xam nga luñ ci am trésorier bi ñëw ne imam annoncé ñu nit ñi ne Soham Wardini dugal na ci compte bancaire bi cinq millions waa guy gi compte bancaire boo xamante ne xamoo ban banque la nekk. amoo ndigal pour nga mën a am accès ci compte ba. ñaara ca am ndigal di am ci signature muy président ak trésorier. waaye yow compte bancaire boobu nan nga fay egg bay jël cinq millions. beneen bi ci de cinq millions yooyu fan la jaar ba dugg sama loxo. ñoom ñiy wax nañ ko wax. lancé naa leen defi ci télé bi. Mhm. cinq millions yi nañ wax fan la jaar ba dugg sama loxo. kon fen a ngi foofu. Mhm. sàcc na cinq millions. Mhm. Euh, bi ñu demee ba ñu encaissé ko léegi mu des nan lañ koy utiliser. Mhm. mooy dañu wut kuy pavé. mu defar devis. devis bi mu defaroon cinq millions huit cent cinquante la. kii pavé man maa ko indi. parce que sama kër moo may karoleel. devis bi bi mu ko yónnee Soham Wardini. devis boobu la Soham Wardini basé jox leen cinq millions yi. ñu daal di wax ak moom main d'œuvre yaag yooyu yëpp ca la bokk. mu mhm. commencé liggéey ba egg ci liggéeyu def na trois pavé na trois millions ci jàkka ji. Mhm. lu tolloog valeur trois millions. Mhm. léegi boloké na. ne leen dama bëgg ngeen mottalil ma ma eggale liggéey bi. ñu ne ko non duñ la mottalil. parce que cinq millions yi dafa am luñ ci bëgg. utiliser quatre millions ñu indi coowoo lool yooyu mën lool sama yoon nekku ci. Mhm. diggante trésorier la ak ki nga xamante ni mooy président. Mhm. ak ki liggéey mais yooyu détail la mais xoolal nga jóg ne imam Khalifa dafa sàcc cinq millions. cinq millions. Mhm. te ñoom dañ stratégie lañu ñu def. yëfi politique la ñu def. ndax ñoom. jóguñu dégguma kenn ci ñoom ñu wax ko mais dama jekk rek toog gis ci Facebook bi. Mhm. kuñ naa Anita Diop. Mhm. xam nga moom ñu ngi koy jiiñ benn ministre boo xamante ni. Mhm. maag moom ñoo bokk village muy Guinguinéo. ministre bi yéen ñëpp xam ngeen ko Anita moomu moo bind ca paasam ne imaam xalifa Babacar Ndiaye da Pastef génne génne vidéo boobu ngay wax naan mu ngi circulé. génne ko teg ca kaw ne imaam xalifa Ndiaye bu Pastef. moo ne cinq mille moo sàcc cinq millions yi ñu ne ko na ñëw leeral ko mu indi ay ñu indi bagaar xoolal yooyu fen tey kooku nga xamante ni moo nekk ci suufu loolu mm-hmm. amul korité wala tabaski bu mën a taxaw bett ma geeñi ne wala feneen tàllal ma loxo naan ma baal ma ba jàpp considération ni baal ma jooju dañuy yóbbaale sos yi ak fen yi mm-hmm. ne ma détourné cinq millions mm-hmm. bi ñu xoolee profil bi aji saar lañ ci gis photo mhm. xamuñu kan la mhm. ku ñuy attaqué contre euh, plainte ngay def contre x mhm. la ca des yoona ko moom mais ma waxal la loolu du mbir mi loolu dañ ko jóg pour dénigrer ma parce que dama déclarer suma position dinaa fa ñëw jeex na loolu la leneen la ca des nag assemblée générale assemblée générale booy dem nga yóbbu lii boo demee nga dugal ko sa site. Mhm. Mhm. comité de gestion bi. Mhm. ñu ngi nii comité de gestion bi lii lañ bind. lii lañ bind. ki bind lii ay français yu leer la bind kase ko signé ko. kii moo am droit xam lu ñuy dugal ak lu ñuy génn kii moo am droit convoquer assemblée nationale. d'accord mooy président bi. ak comité bi yépp. ñoom ñoo bind lii. d'accord kon lii. Mhm. dindi na tuuma. Mhm. et léegi ana 5 millions te guy gi. Mhm. nee naa la la ma defee. romb na 50 millions de. lii Abdou Karim Fofana la. te bokkuñu pol fu ñu jublu. politique lii euh, benn colonel la. lii benn euh, directeur de de de douane la. lii yeneen jullit yi ci biir ñoo ko fa def. Mhm. te ci sama loxo la jaare man maa ko def. Mhm. gis nga jumaa ji. Mhm. suñu doon wax ni imaam xalifa dindi la nga fa def yëpp. jumaa ji su doon nit ku taxaw dana def yaramu neen. dara du fa taxaw. kon kiy yëkkati loolu di ko def est-ce que yëg nga bërki démb. bërki démb matagul weer. wala ca lay yem. ca Covid ba ba léegi jàkkee jigéen ñi ventilo yi dafa yàqu. cour bi ci diggante morgo bi. ak jàkka ji. mën nañ fa agressé nit mënoon nañ fa agressé nit te kenn du ko yëg ndax dafa lëndëmoon. man maa yëkkati sama juróom benn fukki junni yu ma kenn mayul. dem def ko fa. dama dugg ñoom jigéen ñi ñëpp dañu taxaw ne ah ventilo yi da wax dëgg yàlla. ki ko changé yàlla yàlla seral xolam. kon ñiy sos nii. ci mhm. barke loolu ma def te yàlla tax yàlla na ma yàlla àtteeg ñoom. bi jaahi sayyiduna Muhammad mais ay kàcc la ay sos la ay politique seen yu lalu ci seen suuf parce que jóg naa wax naa fi ma féeta mhm. d' accord mu mel ni foofu noonu laay dugg mu mel ni coow li après dafa mujj sax politique daf ci lax parce que ñu ngi gis ñenn ci ñi nga xamante ne ñooy waa taxaw ñu ngi naan noo bokkul ci ñun Pastef la bokk déclaration mën nga ñu indil ay leeral ci déclaration boobu. waaw euh, taxaw sax man xam nga man wax dëgg yàlla respecté naa leen trop. Mhm. bokk ci ñun la bokk. Mhm. kooku mooy géej gi am na xorom. man mhm. bokkuma Pastef. Mhm. bokkuma taxaw. Mhm. taxaw Dakar. bokkuma ci bokkuma Pastef. sa mot de la fin ci émission bi comme ni ma ko Ousmane Seck waxee woon. <laughs> waaw moo de samay moo yàlla bu mu feete du feete émission <laughs> waaye li ñuy ñaan yàlla. mooy ñu delloo siwaat xel yi. xam ni. gis nga euh, Macky Sall président. Eh, yàlla jàppale na la ba jiite nga réew mi ñaari mandat mhm. pare nga wax nga li nga waxoon loolu eh, confirmer ko rek mhm. nga jéem a seet nu mu gën a rafeti mhm. sa gaañ yi nag bu fekkee yëg nga wala yëgoo galgal yi ñuy galgal nit ñi ak di traumatiser ak di créer fake news ak yooyu yooyu taxul sénégalais bi dellu gannaaw taxu ko mu def dara da koy yokk courage xale yi nga tëj ci kaso bi bàyyi leen ñu génn dem mhm. père de mère de famille de même mhm. parce que am na loo xamante ni a koy wax te dinaa la ko wax kama tuddi nu tuddaan mhm. li nga leble loolu lañ lay fay te ku ñu fay sa bor nga mer guy gi la nga leble woon moo baaxul ngi ñaan yàlla jàmm ak sutura yal na ko yàlla saxal ci site bi allahumma amin gën leen a ubbi ba ngeen raw site yëpp Euh, lu ñu si wax mu juum yàlla nañu ko yàlla jéggal ak mm-hmm. askan wi ñuy seetaan lu ci mm-hmm. jub yàlla na ko yàlla ful mm-hmm. nit ñi mën ko jëriñoo jërëjëf seen site bi nga xamante ni mu ngi tudd people deux cent deux cent vingt et un ak guy gi quatre vingt quinze <laughs> borom français yu neex yi <laughs> salaamaaleykum wa rahmatullah